الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بوك جولي دار البر تي في ميغي ديكاتك تي واجلو كور تاي نونغي نيو تي الصيام مدرسة خلقية كبرى موي كور école la buy defar jikko waaye école bu mag a mag la xam ngeen ni koor mbokk yi comme ni ma ko waxee ci bind bi passé ndeke koor jihaadun lin nafs koor day ñëw di xeex ak bakkan ngir sellal ko kadd ab man zakkaha yow mi woor boo seetloo sa bakkan ni muy yaroo sa xel ni muy yaroo sa xalaat ni muy yaroo lu dul koor rekk koore ko ci mën bokk na ci xikma yi saaboo boo wooree sa bakkan dana woor ndax xam ngeen ni nit su lekkul naanul bànneexu bakkanam dafa daal di moo taxoon yonent bi wax nii xale bu góor bi amul lu mu canee na woor ndax woor day damm bànneex mbokk yi koor day xeex ak seytaane ci bëgg-bëggam seytaane pour mu jekk doomu aadama day fekk mu nekk ku regg su nit ki reggee fakkastal ko day yomb waaye nit bu wooree day gën a jege yàlla kon seytaane da ko daa sori bokk na ci ndeke koor day jàngal nit jikko bu am solo muy as-sabr te mooy muñ ndax kër gi nga nekk frigo baa ngi fi ndox maa ngi sedd guy boisson yaa ngi fi lekk yaa ngi fi fruits yaa ngi nii légumes yaa ngi nii te bu nekk yaa ngi ci biir néeg bi ñu nekk fa ak yow te sa xel xalaatul nga laal ko lan moo tax kon yëg nga ni am na borom bu la tiim ak loo xiif xiif ñemewoo jël ndox naan loo xiif xiif ñemewoo jël benn fruit wi daal di lekk loo xiif xiif ñemewoo jël benn gâteau daal di lekk waaye yëg nga ni koor gi ki tax nga di ko def mooy yàlla te moo la ko tere kon loolu dalay jàngal daal di muñ fasbir wa ma sabruka illa billah kon mbokk yi ndeke koor daf ñuy jàngal al indibaat te mooy tënku tënku nag mooy li nga war def nga def ko li nga war te def nga bàyyi ko waaye koor daf ñuy jàngal yërmande goo xam ni ci sunu biir lay dellu bokk na ci ndeke mbokk yi koor waxoon naa ko ci bind bale paase day yëkkati nit ci daraja yi gën a kawe ndax xam ngeen ni ragal yàlla bokk na ci xikam yi gën a kawe te ñu soxla ko ndax ragal yàlla moo war a nekk jubluwaay bépp jullit yàlla na nu ko yàlla may may ko mboolem jullit kon yow sama jigéen yokkal sak ragal yàlla ci say koor waaye yow góor gi it yokkal sak ragal yàlla ci say koor soo seetloo bu weeru koor ñëwee ki doon déglu musique dafay moytu musique même su ko mënta ñàkk def dana ko wàññi walla su koy def dana ko nëbb weeru koor su ñëwee ki don saga wala lammi ñam ñaaw dana muytu loolu ndax day bàyyi xel ni nit ñaa ngi woor kon jarul muy ñaaw jikko waaye mbokk yi weeru koor bokk na ci li muy defal nit mooy jege yàlla taala wa tabaarak kon ñu xam ne assiyaamu shiaarul abrar ndeke koor mooy melokaanu ñi ragal yàlla mooy yërëb ñi ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ni ñëw na ci abdu ibn hamid génne na ko cheikh albani wéral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار laysoo bi asmatin wala fujjaar ne yàlla defal na leen jullik julli ñi baax ñuy jóg ca guddi ya di woor bëccëg ya kon mbokk yi seetlul ndeke weeru koor li muy tabax ci nit li muy tabax ci ay jikko même ki gënoon a doy waar nga xam ni métiem bu dee jigéen moo nekkoon jaay boppam su koor ñëwee dafay ragal dootu ko ñeme ki nga xam ni métier moo nekkoon naan sàngara man di heure bi mu nekk su koor ñëwee dafay am lu mu damm ci moom kon ndeke mbokk yi weeru koor bokk na ay njëriñam bokk na ci ay njëriñam sawmu laa misla la ndeke koor amul dara lu mel ni moom jëlee nañ ci abi umam al bahili qala qultu ya rasul allahi murni bi amal قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له صحيح رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني أبو أمام الباهلي dafa ñëw wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko digal ma jox ma ndigal jox ma loo xamante ni mën naa koo def mu jëriñ ma yonent bi ne ko taqool koor alayka bi sawm ndax kat koor amul lu tolloog moom nee na ko laa idla la amul dara lu tolloog moom ñëw na ci beneen riwaaya alayka bi siyaam fa innahu la misla la yonent bi ne ko taqool koor ndax koor dara melul ni moom bokk na ci ndeke mbokk yi aji woor gémmiñam dafay laab lool fa yàlla waaye mooy gën a xeeñ xeetuk misk ñëw na ci hadis boo xamante ne buxaari ak muslim génne nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala xaluufu فمي الصائم أطيب عند الله من ريه المسك نينا خيتو جيم نيو ادي وار مو غنا خين مسك مسك بي مسك بي غاي ديو نيت ني نان خيت جي نيخنا رابيتنا خنا خاموني بو وورے سخيتو جيم مو اپ لولے نديرين مبوكي كور واي وور يي ñom ñoy ñi nga xamanteni fu nu tollu dañuy tourisme kon ndeke borom bi neena way wor yi ñom ñoy wërkat ya ci maana ci kaw ak suuf borom bi ne attaa'ibuuna alaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ihuuna alraakicuuna alsaajiduun alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna can almunkar walxaafiduuna li huduudillah wa bashiri almuminin borom bi nee na way tuub way jaamukatu yàlla yi way tagg yàlla yi nee na ñooñee ñooy way woor yi ñoom ñooy rukkoo ñooy sujjóot ñooy digle lu baax di tere lu bon te ñoom ñooy aji sàmm frontière u yàlla yi kon yaa Aïcha nee na siyaahatu umma as siyaam nee na xeet wi nekk seen ak tourisme nekkul nga génn dem dëkk sàngam ngir xam ko waaye nee na soo wooree rek yaa ngi ci tourisme kon ndekee mbokk yi koor lan moo tax mu bëri njëriñ ndax sa bànneex yépp da nga koy bàyyi ngir borom bi borom bi nee na yadau shahwatahu min ajli nit ki day day bàyyi bànneexam ngir sama jëmm moom yàlla man yàlla mbokk yi يالله سبحانه وتعالى داي نيانال ادي وور ملائكه يي داي نيو صلى الله عليه وسلم واخناكو تي حديث بو خامتيني ابن حبان جننكو اك تبراني تي اوسط شيخ الباني وير الحديث بوبي نينا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين نينا يالله تعالى وتبارك موكي ملائكام دنا نيو جولي تي dañuy xëdd kon ndeke aji woor ji bu xëddee yokk na darajaam yokk wéram mbokk yi xanaa xamuleen ni ndeke koor day kaffaara ay bàkkaar alsiyaamu kaffaaratun lil xati'at ñëw na ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne alimam buxaari ak muslim solo nanu ko mu ne يونت بنينا فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يونت صلى الله عليه وسلم نينا فتنة يقور تنجبوتم سجابر نيكو دوي وار دي لفتنال ولا سيدوم نيكو ني دوي وار دي لفتنال ولا سأل الاندل لفتنة ولا فتنة سبكاً wala say doom wala say dëkkandoo nee na li ko mën a teggi dëgg dëgg dëgg nee na loolee moom mooy koor soo wooree rek day mel ni fitna yooyu dem na kazalika soo jullee soo saraxee wala nga digle lu baax tere lu mel mbokk yi koor ndeke day yëkkatil nit ay daraja xaafis ibnu hajar ñëw na ci wax bi yonente bi wax ne borom bi wax na ko nee na illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi nee na koor yàlla nee na moo koy fayal boppam du yebal benn malaaka mu lay koy jox mu lay récompenser waaye yàlla nee na moom moo koy joxe bokk na ci ndeke aji woor ñaanam dañu koy nangu kenn du ko delloo yonent bi nee na sallallahu alayhi wa ci hadis boo xam ne abi hurayra moom moo ko soloo muy hadis ibni habban xadis boobu li muy wax moom mooy yonent bi nee na salaasatun laa turaddu daawatuhum alsaimu hiina yuftir wal imaamu al aadil wa daawati al mazlum yonent bi nee na ñett a ngi nii seen ñaan yàlla ne du ko delloo ñu ne ko kan ak kan la mu ne aji woor ba ba muy dogu lu mu ñaan yàlla da koy nangu aji woor baba muy dogu lu mu ñaan yàlla dana ko nangu nee na imaam boo xamante ni dafa maandu njiital réew lu maandu njiital société bu maandu borom kër gu maandu ñaanam yàlla da koy nangu wal imaamul aadil ne wa daawatil mazlum ku ñu tooñ xolam jeex mu ñaan yàlla nee na ñaanam dama koy nangu kon ndeke mbokk yi wor daraja yu bëri mom mo ci nek bokku na ci daraja yi ndeke koor pak la ci duggu safara motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko ci hadith bo xamni an-nasa'i soloo na ko ak imam ahmad cheikh albani wéral ko nee na assawmu junnatun min azabillah nee na koor day pakk la ci mbugalu yàlla taala wa tabaarak bokk na ci mbokk yi ndeke koor day ramm boroomam yowmal qiyaam ndeke boo bëggee koor ramm la da ngay saxoo koor abdullah ibnu amr radiallahu anhu ne yonent bi nee na alsiyaamu walqur'aanu yashfa'aani lil abdi yowma alqiyaama yaqulu alsiyaam اي ربي اني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القران رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان عبد الله بن عمر ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ني كور اك جانغ القران نيوم نيار داني رم جام يوم القيامه نينا كور داي نيو ني اي سما بروم sa jaam bi maa ko teewoon lekk ak naan ak bànnee xam kon yow yàlla maa ngi lay ñaan nga ràmm ko ci sama daraja bi nga ma defal alquran it ñëw wax loolu moom it day ñëw ne ay sama borom kii dama ko tere woon nelaw ci guddi gi kon maa ngi ñaan nga ràmm ma ci moom mbokk yi kon ndeke koor lu am solo la waaye bokk na ci fa may mujjee képp koo xamante ni bi ngay génn àdduna bokk na ci dangaa wooroon mu nekk sa mujjug jëf nee na kooku day dugg àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis boo xamante ni imam bazar génne na ko cheikh albani wéral ko yonent bi nee na man xutima lahu bi siyaami bi siyaami yawmin daxala aljanna man xutima lahu bi siyaami yawmin daxalal janna nee na képp koo xamante ni mujjeelug jëfam mooy koor maanaam nit nit ki dafa woor wooru nappi la wala dafa woor wooru farata wala wooru nizar wala wooru fay koor nga gaañu ca loolee nee na loolu xatmun xasan la maanaam mujj gu rafet la yàlla nanu ko yàlla defal defal ko ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.